وهب لي التفسير والتلاوة وهب لي التجويد والحلاوة أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفاه إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيني مبكي nuyu mbokki مبكي تالبي نيني mbokki taalibe yi di ñëwaat ak yéen ci seen jataayu alquran ci jataay bi weesu ñu ngi woon ci alquran ni mu wàcce waxoon na ñaari xeetu wàcciin wàcc dafi wala ak wàcc atadrij yi mooy lu jógee ndoo lu wàccandoo xam ne loolu mi nga am ci monde monde yu kawe ya foofu dafa yaatu moo tax alxuraan xaj na fa wàccandoo fa jóge ci lawxul mahfuz wàcc ci baytul izza ndax monde ba yaatu na yaatu googu waaye monde physique bii ñu nekk nga xamee ne mooy aalamu dunia ba bañ na ba alxuraan da koy tuddee adduna bu tuuti bu suufe bi dafa sew a sew ba par rapport ak monde yële yenn saa salaam dana ko wax di ko misaal ne mi ngi mel ne euh, boo boole woon ak euh, asamaan yi euh, suuf seeg asam juróom-ñaar juróom-ñaari asamaan yi nga teg ko ci kursi yu mi ngi mel ne benn jaaro nga sànni ko ci biir àll bu amut fu mu yem kon mooy wane différence bi am ci ñaari monde yi fële ni mu yaatoo ni mu ñàkkoo tënku lu nga xamee ne mbirum ruu la dara du du du làq morom ji foofu mbuutu yàlla xaj na fa amma monde bi nga xamee ne nag monde euh, corporel la monde physique la monde matériel la nga xamee ne euh, lu lu fi nekk day làq la ca des euh, nga xamee ne loolu alxuraan xajandoowu fi alxuraan li mu man mooy dara daraam wàcc comme boo doon jëlee ab ndox ci ab ci ab euh, euh, euh, ab château ndox bu nekkee ci kaw xajandoo na fa waaye buy wàccee ci raakul bi suuf ndox mépp mënut a wàccandoo ab pepp toq mooy wàcc beneen toq beneen toq ba lépp wàcc kon loolu mooy sababu stadrij bi ak li ci nekkaat ci ay jàngaleek dalal xelam ak màggal kook teral kook yooyu yëpp Euh, loolu mbóot mi li ci li ci aju bi mooy ñaari monde yi dañoo bokkut monde physique ak monde euh, monde corporel ak monde spirituel euh, beneen bu aju tamit ci lu aju ci wàllug révélation alquran te saar yu indi ko mu inna anzalna fi laylatil qadri mooy jibril mooy wàcc indaale alquran waaye jibril ñaari xeeti révélation la indaale révélation boo xamee ne

maay nangam maay nangam maay nangam loolu yàlla wax yàlla la kon du wax yoon sax waaye baat yi du baati yàlla du révélation sens bi mooy moo jóge ci yàlla ci loolu nag moo tax boroom xam-xam yi indi foofu benn ay jàngat yu bari yoo xamee ne ñiy jàng ci wàllug usul wàllug yooyu ay ay ay ay ay ay ay ay ay chapitre yu baree bari lañ lañ fay jàng lañ fay bind di leeral différence sunna ak alxuraan ndéem ñoom ñëpp révélation la lan mooy seen digg digg diggante am na mën nañ cee wax yu bëree bari waaye euh, waxtu du du ñu may ñu dugg ci lu bari bokk na ci li leen di teqale ñoom ñaar mooy euh, alxuraan baat bi ak sens bi ci yàlla la jóge ñaar yëpp bu dee sunna wala xadiisul qudsi yi sens bi rek moo jóge ci yàlla loolu nag li li li muy indi mooy nit ki bu doon julli mënut a jullee hadisul si ndax baat bi jógewut ci yàlla maanaam bi moo jóge ci yàlla waaye boo doon julli sa aw saar nga jàng ci alxuraan ndax saar bi sens bi ci yàlla la jóge baat bi ci yàlla la jóge kon loolu li dif liy teqale ñoom ñaar la beneen bi leen di teqale ñoom ñaar it ñaari ñaari révélation yi mooy euh, liñ naan at tahaddi wal ijaaz mooy alxuraan yàlla da cee mbindeef yépp ku mën a def lu mel nii na ñëw baat bu mel nii keneen mënu ko maanaam mu mel nii keneen mënu ko maanaam mu mel nii ci gindee nit wan wa wan leen yoonu wu tegu yoon xamal leen euh, li gën ci ñoom xamal leen fi ñu jugee xamal leen seen borom xamal leen fa fañ jëm ak wax leen xibaar li amagut loolu taxaddi boobu ak balaaxa mooy lak wo xamee ne ci ci ni mi waxé dafa kawe lolu sansu alquran moko ko am waaye xadisul qudsi amut ihjaz bobu bu mel bu alquran bi la bëgg a wax amu ko moom kon loolu yooyu yëpp yu ñi xol la pour mëna différencier mëna tekkal tekantal digënté alquran ak alhadith alqudsi loola tax baatu alxuraan rek moo mën a taxaw taxawaay baatu alxuraan ci wàllu diine beneen bu aju tamit ci euh, wàcc gi ñu ne euh, xal xolub yonent saa salaam ni mu yaatoo ni mu rëyee moom dong moo mën a àttan mbóotum alxuraan ndax ben turu yàlla mo ëpp mbindeef yépp bo leen boole woon moo ëpp mondu yépp as sakkantuma nag téere boo ne mboolem turu yàlla yépp la contenir kon loolu lu rëy rëy la kon nu mën xaje ci xolub yonente bi alayhi salaatu wasalaam foofu la secret yonente bi alayhi salaatu wasalaam nekkee ndax al insaanul kaamil dañ ne la dañ ne moom alkawnul jaamic la ndax bu doon adduna bi monde yi ab ab ab logiciel la wala ab ab ordinateur mën nañ ne monde yëpp ñooy hard hardware yi soft bi nag mooy programme bi koy doxal mooy ruuxu yonente bi aleyhi salaatu wasalaam moo tax li lépp xolub yoonu saa mo gëna reey lool lépp ndax mo koy moko mëna doxal lool rek motax alquran xajut ci aduna yoy yep xajut ci xolu ben yonenti waye ci xolub yonenti bi ali salaatu wasalaam rek la xaj lutax moy yenen yonenti yep ben turu yàlla la representer mazharu ismin min asmaillahi al husna benn ci turu yàlla yi rek la wone أما يونس صلى الله عليه وسلم نك موي عبد الله موم تورو يالا ييب بوكو بولي موي ريفليتي تي موم لولو موتاخ مبوتو سر تورو يالا ييب نيك تي موم موتاخ مو نيك ال انسان الكامل دون ال الفاتح الخاتم دون كي ايبي دون كي تاج بن بو خامي نيت ا توم بام سولو muy alquran wax nañ ne bi mu wàccee ci jóge ci euh, lawxul mahfuz wàcc ci baytul izza ni mu rëyee ak leer gi mu àndal ak xew-xew bu toll noonu musta am bi yàlla bindee mbindeef ba léegi malaaka yi ko fekk yépp dañoo xëm ngir màggaayu alquran léegi liy wane rëyaayu yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu lépp bi mu wàccee ci xolub yonent bi aleyhi salaatu salaam la wàcc kon mooy wane ne yonent bi salaam yëmut ak dara loo xamee ne malaaka yi koy gis rek waxuma la muy wàcc seen kaw waaye bi ñu ko gisee dañoo xam malaaka yépp ngir attanuñ ko te mu mën a wàcc yow ci sab xol nga attan ko kon mooy wane rëyaayu xolub yonent bi aleyhi salaatu salaam ak mbóot ma ca yàlla def ba mu mën a attan alxuraan ndax Euh, alxuraan mooy amaana bi gën a rëy asamaan attanu ko suuf àttanu ko waa ña ca kaw bu ñee asamaan mooy ña ña féete kaw malaaka yi féete kaw yëpp attanuñ ko ñi nekk ci suuf ñëpp attanuñ ko waxamala al insaanu insaan boobee nag mooy al insaanul kaamil mooy yonante bi aleyhi salaatu wasalaam pour man koo jàllale nag mbóot mi ci moroomi nitam ñuy niru ay nit ay moroomam ñu ne ba tey ci xëm googu malaaka yi xëm ci guddig wàccug yon euh, wàccug alxuraan mbóot ay mbóot a ngi ci mooy ñoom bi ñu gisee alxuraan di wàcc xam nañ ne saa jege na ndax yàlla xamaloon na leen li tax ma bind ki tax ma bind lépp ci mujjug jamono lay wàcc te bu wàccee li des jamono jeex ma taxawal sama bisub layo bi la ca des bëreetut moo tax bi ñu gisee alquran wàcc tiit nañ ba ak xam li mu làmboo tiit nañ ba ñoom ñëpp dañoo far xëm lu tax ñu xëm nee na ngir màggal fa saxiqu haybatan minhu wa ijlaalan li kalaamihi وحضرة وعيده وعده ووحيده ووعيده ndax dañoo xam li alquran lambo ñu màggal ko rëyal ko jox ko cër ak dayo bi mu am wax yàlla ji xam li mu làmbool ci ay diggaate ak ay tëkkuwaate loolu moo tax ñu daanu jël ñoom ñëpp ngir màggaayu alquran mu ñëw nag ci ba tey ci wàcc gi la nekk alxuraan mooy wax yàlla ji nga xamee ne mus la dañ te du dañ ba faw weeru ramadaan kon dafa mel ne laaya wi bi ñu jàngee ne inna anzalnaahu fi laylatil qadri nit ñi يلا فوفو واخ وان نانيو ني القران مانكو واتي تي ويرو ليله القدر واي واخو نيو ليله القدر تي بان جامونو لا ام واخنا ليرال نا القران بان تان لا نكو واتي موي ليله القدر واي ليله القدر كاج لا القران واخو نيو فوف كون القران دلو ني تي بنين سار تي بقره وينن لايه leeral lii mu lëmoon laylatul xadri boo leen xamul kañ la dellu leen ci suratul baqara nee na chahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnaas kon kon foofu ci technique alquran ni mu baaxoo defee lu jar a bàyyi xel la mooy léeg-léegi day wax dara fii lëm ko demaat ci beneen barab firi ko fa mooy il faut faire attention booy kuy jàng alquran wala ku bëgg a traité alquran mooy mbir mi deesu ko daggat dee ko deesu ko xool ci benn angal doo xool wax yàlla nga jël ci benn circonstance bi muy waxee bàyyi yeneen circonstance yi ku bëgg comprendre wax yàlla da ngay xool li ngay li muy wax nga xool fi mu ko waxee fépp nga dajale ko xool lan moo ci jiitu ak lan moo ci mujj loolu moo lay mën a jox benn sens bu global ci nga mën a dégg alxuraan kon fii technique bobu nga xamné ne mufassiroon yi dañ koy jëfëndiko ci firi alquran dañ koy jëfëndiko dañ koy appliquer fi moy gis nañ ne alquran lëm na ne al ma ngi koy wacc ci laylatul qadr te waxu ñu laylatul qadr ban temps la am ci ci ci ban wër la am ñu ne dañuy delluwaat ci alquran renvoyé wat ko ci mu xol lu mu ko leerle ñu wat mu won nañ kon ndekete yo kon laylatul qadr ci wëru koor la ndax moko wax ca سورة البقرة نه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كون لولو ليمو لنتون ليمو لمون فوفو لا كون جيكا ليرالي بنين بي موي خمو نيو تاميت ا غودي لا ولا بتيك مو ليرالات كو تي ني إنا أنزلناه في ليلة مباركة تسورة دخان nee na mooy ñaareelu leeral bi nee na ba tey mbir mi leerut mu leeralaat ko nag mu dog koo leeralaat nag ci ñetteelu ñetteelu leeral bi mooy inna anzalnaahu fi laylatil qadri kon première leeral bi mooy chahru ramadan wàcce na alxuraan te xamuñu woon temps bi mu wane na ci chahru ramadan la ñaareel bi xamuñu guddi la wala bëccëg mu leeral ne guddi la xamuñu guddi googu ban genre guddi la mu indi ko ñetteelu leeral bi ci sóoratu saar wi ñu nekk muy sóoratul xadri wane ne inna anzalnaahu fii laylatul xadri nee na nag booy xool alxuraan ñetti xeeti leeralam yooyu ñaare dana ko euh, uslubu alxuraan la lëm xaw a leeral leeral nañ loolu loolu ci technique yi alxuraan di baaxoo def la kon tamit ki bëgg a comprendre ki bëgg a firi alxuraan ki bëgg xam ni mu traité waxe yàlla il faut mu bàyyi xel euh euh stylu alxuraan alxuraan nan la baxo waxe ndax ki wax kenn ki la te ni la baxo waxe il faut nga jëm ko décortiquer jëm ko comprendre ba xam bo beugé comprendre waxam nan yan yan processus nga wara jaar ci ni mi leralé waxam ñaarale da koy leum leeral ko dank gën ko leral il faut tamit ñuy bàyyi xel lolu ci technique alcorane kon euh euh waxna yit ne ان ليله التي يفرخ فيها كل امر حكيم وينسخ فيها امر السنه وتدبير الاحكام الى مثلها هي ليله القدر في نك دا تامري نيو ليرال ليله القدر سانس بي لو تخ تودي كو ليله القدر mu ne boo delloo ci sóoratu duxaan la fa yàlla yi leeral danga xam lu tax laylatul xadri lu tax ñu tudde ko benn guddi dogal bi wala dugg guddi gu rëy kem bi loolu nag pour mu leer dañu ñëw ba jataayab suba bi ñu àggale ko fa wasalaamu aleykum wa wa barakatuh wahab liya tafsira wa tilawa wahab liya tajwida wal xalaawa